sin ginnaaw ngeen xam ne tey xar moo xewle euh, ñu ñëw fekk si waa session APRLD euh, ñu tëgg fi benn foire bu mag a mag euh, ci sama càmmoñ maa ngi toog ak Matar Soxna sama ndajaar maa ngi toog ab Ablaye Diop tey ñu war a waxtaanee lu ndaw rek balay suba ndax suba la yëf yi sëñ Matar tey ñu bëggoon a xam tey ñaata exposant ngeen am. waaw d'abord damay nuyoo ba pare salaamaaleykum Lamine maa ngi lay fay di la dalal ci wuyu bi nga ñu wuyu si yi nag am nañ fii ci vingt cinq box 25 waaw ñoo fi exposé actuellement. Mhm. ndax mën nañ xam exposants yi fi nekk yëpp ci région de Diourbel lañ bokk. wala am na ñoo xamante nii dañoo jóge si biti ñëw. waaw ñëpp nag ci région bi lañ dëkk. ñëpp ñu ngi ci de Diourbel waaw. Mhm. mën nañ gëm ni kon li ngeen bëgg ci améliorer laa race Ladoum mel na ni kon yéen a ngi ci yoon bi. waaw ñu ngi ci am yaakaar bu baax ñu ngi ci am yaakaar bu baax te ñi gën a farlu nag ci ñaaxat gaa yi tam ñu gën a yokkaat rek ndax moom mbir moom du doy. élevage moom yaatu na yaatuwaay boo xamante ni dara du ci doy waaye nag ñi ngi ci am gën a yaakaar daal baax daal voilà exposition bi nekk suba tey di guddi gi nga xam ne gars yi ñu ngeen di xari di dugal ko par benn yaakaar naa topp nañ box par box kon mën nañ téléspectateurs yi mën nañ xaar suba gis fi liñ naan ay xar de qualité waaw incha allahu rabbi am naa ci yaakaar ndax tam gars yi wax dëgg fa la wuyu si nañ te ñëw nañ andi nañ fi tam ay sujet yu am solo yu rafet taaru gars yi vraiment champion lañ waaw wax dëgg jàpp naa daal bu subaa daal ku fi ñëw boo visité ku ne di nga gis euh, lu fees bët hmm. voilà euh, sëñ Abdoulaye Diop tey nga nekk euh, membre de association ba pare nekk exposant ndax mën nañ am sa aperçu bu ndaw rek ci première part li dawagum ci foire waa waaw jërëjëf sëñ Lamine ginnaaw bu ma sant yàlla jëlee ci yorante bi di sant sama ñaari waajur di gërëm Matar mi ma nekk dendal bokkal plateau bi di la gërëm yow tamit waaw affaire bi de wax dëgg yàlla alhamdulilah. alhamdulilah ci luñ jot a duggagul quoi xam leneen xam naa ko ci moom affaire yi macha allah xar yi rafet nañ génn nañ exposition bi daal fi mu toll nii moom macha allah. ndax bëgg xar bu ñëwee di nga ko jaay. incha allah waay bëgg bu ñëwee nañ ko jaay bu ñëwee ku bëgg pitax boo ñëwee nañ la jaay ko xar boo ñëwee nañ la jaay ko bëgg nag boo ñëwee nañ la jaay bu soobee yàlla. maa de ndax fii demee noonam déet. waaw njaayam foire ak njaayam benn la rek. fii moom xar mu yomb amu fi xaru laadum moom ku nekk xam na la muy jar yombul waaw. kon mën nañu wax ne suba ku bëgg xar tax laa jóg moom bu ñëwee fii rek war na ko fi mën a am. incha allah waaw bu soobee yàlla ku ñëw daal di nga am xar incha allah. Ah, kon xam naa da ngay jox téléspectateur rendez-vous suba rek ndax xam naa faaw ñëw sa box xool la fa nag. waaw loolu jër waaw sama box daal maa ngi wax ne gaa yëpp fa ñëw box numéro 16 la dafa gaa ñëw jaar xool ko bergerie Sëñ Mbacke Madina waaw bagage yu baax a nga fa waaw waaw akasa voilà Matar xam naa dañuy brosser benn kii bu ndaw ndax fii ku fi ñëw nga nga war a xam ni euh, xaalis dem na fi alal dem na fi ndax lii quoi qu'on plus dire nag ay matériel moom investissement bu mag la ndax mën nañ xam Matar ñan lay liggéeyal bu egsi fii bon par exemple comme façon liggéey bu demee nag maanaam ñi la ñi ne si ginnaaw xëy na di la gunge xëy na ñàkkut sama xalaat bu gàtt ñoo xam ne ñu ngi lay gunge accompagnement financièrement wala xalaat wala lu mu doon waaw bon mën naa wax nag ne loolu moom suñu biir association bi rek pratiquement ci la yem. waaw à part euh, bis bi ki ñu tuddee bu dul loolu daanaka euh, ñun ci suñu biir la daal waaw ci association bi rek daanaka moo ñoo ñoo tënku daal ci wàllu financière bi ci wàllu lépp ñoo ci dox doxal daal waaw am nañ nag ay suñuy mag ñoo xam ne suñu magu éleveurs yoo xam ne ñu ngi ñuy conseillé diñu doole ay conseil suñu toll waaw waaye daal lu ci mën di xew daal lépp lu loo fi gis daal moom association bi ñoo ko taxawal waaw yaakaar naa Matar euh, lii benn euh, première partie bu ndaw la woon rek balaa ñu yegg suba ndax xam naa ne faaw ñu yaatal nag ndax yaakaar naa ne élevage Diourbel fi mu toll ku nekk xam na ko jafe-jafe yaakaar na ñëpp xam nañ ko lépp war nañ ci waxtaan ak képp kuy exposant fii nekk membre ci association bi kon nan lay jox rek maanaam ak téléspectateurs yi nga mën leen a joxaale rendez-vous waxaale na aussi li suba. waaw comme ni nga ko waxee woon sànq rek affaire yi moom ñun daal ñi ngi ubbi nañ suñuy bunt te ñi ngi xaar ñëpp visiteurs yi. ñu nag li ñu mën def nañ ko te ñi ngi xaar tam waa Diourbel ñu ñëw ñoom tam def visite bu ko defee ñu xool li nga xamante ni si ñun liggéey bu rafet bi ñu def bu fekkee dal na seen xel te it wax dëgg fa la am na njariñ lu ci nekk am na njariñ ndax li tax ñu tax ñu taxawal lii liñ ci jublu rek mooy dundal élevage Diourbel rek dañ ci jublu kon daal ñi ngi ubbi suñuy bunt di woow ñëpp di leen xaar tam di xaar visiteurs yi jërë ngeen jëf yi kon eh, lii première partie bi rek mu ngi ko suivre ci 3w.temps.com yaakaar naa ne lépp luy xar-xar ci Sénégal rek fii la ñuy wax Diourbel ndax xam naa ne ku fi ñëw ku ne bu dee xar moo la tax wala voilà lu moo doon da nga ko fex moom doy sëkk kon képp leen ñu ci 3w.temps.com yeneen yeneen yeneen facette incha allah rabi ngeen gis lépp jaajëf